waaw salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum li xew TV li xew TV ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay pour ngeen jàllale ñu benn live boo xam ne ci Moussa ñing ndax dañoo koy suba gis ne maanaam site internet yëpp ñi ngi wax ne dafa gaañu te gaañuwul ñu wax ko ko ñaari yoon bii mooy ñaareel yoon ñu koy wax Sénégal da ngeen a war a teey information da ngeen ko war a togg ba mu ñor ngeen doog koo jàllale bakkan doomu aadama dafa foor te Moussa Gningue nitu nit koo xam ne Sénégal dëkk di nit ku baax di nit ku lislaam ku jullite lépp lu ngeen wax nay lu leer Sénégal nag li war nañ cee jóg di jël information yoo xam ne wérul di ko jàllale ci site internet yi loolu lañ war a xoolaat nee nuñ koy def li xew TV bëgg naa ngeen jàllale sama bi ci Moussa Gningue ba man koo yëg ba mu koo gis te xam ne maanaam tàggee nañ ko fi dellu tàggewaat ko fi gudd fan rek waaw gudd fan rek di la tàgge nit te moom euh, kuy dund nga koy tàggee moom te déewul moom loolu gudd fan la rek gudd fan dong moo ko waral waaye nag Sénégal ci boppam war nañoo teey ci li ñuy def nii xëy suba di tàggee koo xam ne baayu jàmbur la ah mbokk jàmbur la doomu jàmbur la ñuy xëy di ko tàggee ci yoo xam ne nii yu fi caaxaan la yooyu nañ ko bàyyi yooyu nañ ko bàyyi sénégalais yi war nañ koo bàyyi waaw li xew TV nag bëggoon naa ngeen jàll leen ma li maa ngi koy naqar lu baax nekk na xool loo xam ne naqari na ma ko trop ma naqari na ba ma ko déggee tey suba ba léegi daf ma naqari ndax war nañoo bàyyi xëy rek di bind seen information yoo xam ne wérul waaw wérul nañuy togg affaire ba mu ñor jàngat ko ba mu wér togg ko ba mu leer na leen maanaam lii lu wér lañu ñu doog ko mën a jàllale ci site internet yi waaye duñu xëy rek ne nit gaañu na te gaañuwul def nañ ko del defar ko moom nag moo ci war a de wax loo xam ne nii maanaam maanaam moom mu ñu ko def mu wax ci xam nga mu wax ci waa senegal yëpp war nañoo wax ci lii war nañoo wax ci lii waaw ndax lii raam ci nag bi la jëm balaa ëllëg mën nañ ko def keneen ak keneen ak keneen nañ bàyyi yi ñuy def nii nañ bàyyi yi ñuy def sénégalais yi nañ bàyyi li ñuy def waaw